bu ñu nee solidarité nag ah ah kenn du jéggi waa Thiès nag. Ah waa ENAWA fa laa dooree. Ah, ah. doon def playback bi ma demee Thiès def fa concert bu mag ñëpp kontaan. il faut ma dellu ENAWA. def benn piscine party waaw xam nga ñëw gars yi. en faveur des enfants waaw waaw waaw conseil de la solidarité. ñu ñu jagleel ko ñi nga xamante ni nag c'est des enfants diminués. Mm-hmm. ah donc nag yéen waa Thiès kaay. man Wally Seck naa fa numéro 14. su ma ñëwee ci piscine bi ñu yendu. photo photo ak ñoom Snapchat. Ah, ah, ah, ak ok ok après daal di defar leen mémoire yu baax wala. donc préparé bu ànd sama xarit sama doomu ndey doomu yaayu papa du Pape ak ak kon ba. le 14 incha